Nous ñi nekk Sénégal nous dañ diaspora mais euh, xam ñi diaspora c'est toujours un coup de pouce bu di jox euh, mais ñi nekk ci diaspora bi problème en quelque sorte directement ak Macky Sall ndax ñi nekk diaspora une bonne partie ñu ngi liggéey ñi nekk ci diaspora bi ñu ils sont autonomes tey ñan ñoo autonome, moy ñi nga xam te dañu nekk Sénégal ñi nga xam dañu nekk Afrique nga xam depuis des générations et des générations ñu ngi leen di exploiter ñu ngi leen di gaañ ñun mun naa ni ñun dañu rëcc parce que tay koo xam tu fais partie de la classe moyenne ak koo xam tu fais partie de la pauvreté boo génnee ba ñëw Europe rek dafa mel da nga rëcc donc ñun ñi nga xam te dañoo rëcc buñu ñu Sénégal même sort que yéen lañuy am yéen ñi nekk Sénégal c'est-à-dire tu n'es pas l'enfant d'eux tu peux pas avoir de travail tu n'es pas l'enfant d'eux tu pourras pas te mm-hmm. soigner wala bo démé hôpital nga fièvre fièvre bu graaw nga tase faak doomu ministre bu fièvre wala doomu Macky Sall bu fièvre fièvre bu ndaw doomu ministre bi moy passé avant yow donc ñun ñoo ñun bu ñu defoon Sénégal même sort que yéen la ñuy subir te nag yéen ñi nga xam te ne yéen bokk nekkoo leen chefu parti benn politique yéen lay waxal parce que yéen am problème politiciens yi xam nañu ban rukku rukkaat la ñuy jaar dem négocier Macky Sall ndax place su Macky Sall ñoom ñëpp moom lañu bëgg. cest yi am na ñu bari ñoo xam te ne ñu ngi ciy rang bi bu leen Macky Sall mënoon passe balle bi directement. sans pour autant ñu dem au but Nous arrangé parce que nous, sommes à part politique nous bëri politique est-ce que gis leen leen ñu liggéey ji Nous nous dara pas politique. politique Nous avons lu dul sac. Nous xam avons ne bu Sénégal de politique nous mënuñu def Nous avons àdduna nous politique. Nous jël dem jaay ji leen tubaab bi mooy ku ci nekk mu ngi wut xaritu tubaabam boo xam te ne fa lay jaar pour dem jaay ji yeneen moroomu sénégalais bi léegi nag yéen bombu lacrymogène yi nga xam te ne moom lañ leen di tiire Sénégal foofu lay commencé parce que am na xale yoo xam te ne noyyi nañ ko ñooñu d'ici quelque temps dañuy am problème poumon wala dañuy dee parce que am na ñu bari ñuy dee.

wala boo leen yeggee seen kër jël len benn kuddu keew bu mok ngén def ko ci ndox ak bant lañ koy tibé ngén nan ko dina mëna xëcc aspirer produit chimique yi nga xamante ne mom la leen tubaab bi dem jaay Macky Sall pour mu ray parce que un nègre de moi, dans ce monde où nous sommes c'est un charge de moi pour les autres pourquoi parce que nous, on est destiné à être des manutentionnaires ñoom bu ñu calculer mindaan yu ñu soxla yépp ñun dañoo ëpp c'est-à-dire l'excès il faut qu'il meure ñu nga boo leen demee ci géttu mbaam wala ngeen dem ci géttu xar xar bi ñu mu munta dundal da di rey wala da leen wàcc ñu dee ñun suñu cas boobu lañ toll plus bu mourrez di ngeen yuuxu naan way tubaab bi Macky Sall la ngi rey mais moom ñoom tubaab bi rey boobu da leen arrangé ci monde bu ñu nekk nii yépp gis ngeen ñaata jeune ñooy dee ci biir ndox mi est-ce que dégg ngeen benn tubaab bu jóg di ko wax ci naan xeex leen ak tax yelleef nit yu ñuul yi déedéet parce que le noir est destiné pour être un manutentionnaire moo tax démb ma ne leen œil pour œil dent pour dent xeex ak xeex rek tant que yéen a ngi dem ci point di joxante rendez-vous ci point te leen door mille zéro tey comme dañ leen infiltrer ci koñ di inverser la tendance c'est-à-dire waa Pikine ñuy ñëw taal géejawaay waa géejawaay dem taal pikin waa Parcelles dem taal waa waagu ñaay waa Grand Yoff dem taal fële mooy ñëy ñëw di taal ci koñ bi da ngeen di inverser la situation en fait mooy bu amee oto boo leen war a taal Pikine du waa Pikine ñoo koy taal waa Parcelles ñooy ñëw taal ko wala waa waagu ñaay ñoo koy dem taal duñ leen mën a infiltrer xam nga ñan la ñuy infiltrer ñi dëkk ci koñ bi ñi dëkk ci koñ bi la ñuy infiltrer parce que dafa ñi nekk ci biir koñ bi dañ la naan diw doomu diw la moo taaloon fii fii la dugg lii la def lii la def mais waa Pikine bu ñu jógee dem géejawaay waa géejawaay du ñu xàmmee waa Pikine duñu xam ndax Pikine nga dëkk duñu xam ndax ginnaaw raay nga dëkk duñu xam fan nga dëkk benn règle numéro boo leen romb taal leen Macky Sall amul sapeur pompier loolu bo leen ko comprendre 48 heures ngeen koy def ñu doon ay nit mëkk lacrymogène bi ngeen di dem di ko mbëkkanteex policiers yi policiers yi si boppam ils sont idiots les premiers à être idiots là-dedans c'est eux parce que yeen ni ngeen di noyé produits chimiques yoy non ñom policiers yi ñoom noonu lañ koy noyé yi ngeen Sénégal policier bu gudd fan du ñu fan de ñoom ñëpp dañuy gawa a te ñoom seen cas moo gën a parce que dañ leen di doxloo yàmbaa dañ leen di drogué ñii di leen dóor nii ànduñoo seen xel boo leen demee xool soit dañoo naan sàngara ba xamuñu fu ñu nekk soit dañoo tox yàmbaa ba xamuñu fu ñu nekk mun nañu rey seen yaay sax te du duñu xam ne seen yaay la bu seen yuur yi dellu si waatee lañuy doog a xam ne seen yaay dangay gis ñu bëri ñu génne bàngoo ñoom ñëpp ñu ci gën a bëri pas moom le une bonne partie dañuy tox yàmbaa tox yàmbaa dañ leen di ñoom dañu naan pour nga nekk góor il faut nga tox yàmbaa nga nekk góor il faut nga tëdd ay bant dañ leen di dañ leen def comme ñu nekk comme ay animaux xam nga animaux boo demee ci biir àll bi nga taseex gaynde bu la lekkee du am sentiment nga taseex golo mu dóor la du am sentiment noonu lañu def ñi nekk ci armée ñooñu ak nervi c'est presque pareil moo tax amuñu xol ñoom Moussa Fall ngeen di gis ñuy def li def nii depuis armée lañ leen formé pour bu ñu am xol dañ leen animaliser endoctriner leen et c'est pire que des esclaves parce que ils sont sous-payés dañ leen def ba nga xamante ne li ñu leen di fay amalu leen njëriñ pour ñu def un sale boulot boo xamante Macky boo ko doon fay ay milliards du ko def doomu Macky Sall boo ko doon fay ay milliards du dem nekk ji policier gisoo leen benn benn nit boo xam ne def na politique je pèse bien mes mots doomu mujjee ci policier amut parce que ñoom xam ne policier boo demee ba dugg fa dañ lay defal loo xamante ne dootoo nekkati nit ñi nekkuñu ay nit man moo tax sama buntu kër gi policier bu né tong tong tong tong tong dama nok sa dom bu né dama koy laaj ban fonction ngay def bu mo né policier la ma ne ko fi kenn du fi may jabar policier parce que policier ci bopam xel bi dem na <laughs> du nit ñu ci gëna a bëri duñu ay nit té comme ñun ràññaatlewuñu ñan ñoy nit ak ñan ñoo dul nit on les met tous dans le même sac dina boo leen nekkee ci a? quest ce qui vous reste à faire donc c'est entre vous les policiers. soit vous soit vous choisir à la place des policiers Vous continuez à mooy bépp policier ba ko il est capable de tuer 10 20 30 personnes parce qu'ils ont été formatés Sénégal pour nous règle numéro un quand vous vous levez vous manifestez. manifester dem avez un ma kew wala surtout ci kër yi asthmatique et tout def ko ci koy produits chimiques nga la Macky Sall di amana sauver beaucoup de vies sew cherut y a des gens qui meurent bêtement amna na ñoo xamante ne tey ñu ngi teud ci lalu hôpital yi ndax lan dañu noy bombe lacrymogène parce que après de lay brûler ce poumon après day des sa yaram après mën na la jox cancer mm-hmm. après mën na la jox plein plein plein plein de maladies léegi tuba bi ñom daf leen arranger ñu ñu feebar parce que buñu fébaré tamit as tuut bi nga xamante ñom jot nañ ko fay ñun dañ koy démat encore joxaat leen ko ñun dañuy mille milliards au Sénégal pour que nous ressortir donc c'est à vous de choisir votre destin C'est un destin c'est ce loxo Nous ñun depuis 2017 jusqu'à présent.

dañu gaawantu accepter lii nga xam nous ne moom la Karim Wade waxoon annuler nationalité française ci loo xam normalement ci seen loi ñoom koo xam sa yaay français la sa française la sa papa nekk français nga juddoo France droit de sol droit de sang tu n'as pas le droit de renoncer à ta nationalité normalement ci mais loolu nangul nañ ko Karim Wade ndax lan parce que dañu tànn Amadou Ba boo xamante ne ñu gis ne ni kooku bu demee élection du am sax 3 pour cent te Karim Wade parti bi comme Macky Sall moo ko jënd parce que parce que Macky Sall moo nekk président wu APR nekk président wu PDS PDS jaay nañ ko Macky Sall yàgg na léegi golo yi fa nekk. mu nek ay député PDS ñom xam nañ né PDS jaay nañ ko Macky Sall yàgg dañuy dil ci sen kaw Karim du mos tek tankam Sénégal bëss bu tegee tankam Sénégal moy lay Wàdd déna bëss bu lay Wàdd déwé bañ koy dem suuli ci ngeen di gis Karim Wàdd biir Sénégal mais c'est des perturbateurs d'élections 2019 lay Wàdd ba mu ñëwé c'était pour perturber les élections lan motax 2019 nous avons dañoo la nationalité Karim Wade Karim Wade droit Sénégal La lan nous avons ñu wax tay jii dañu euh, nationalité française am belle nationalité pour nous, président de la République Sénégal parce que chaque élection nous Wade mo daan ñëw di perturber lay Wade dafa fébar mënul nous perturber donc il faut que créions une une situation pour perturber pourquoi parce que tant que PDS mu ngi nekk ci digg bi ñoom élection PDS ak APR dañu aligné moo tax ñu daanal euh, opposition bi parce que Macky Sall tout seul mënul sàcc élection il faut ñu wutal ko kenn ko xamante ne dinañu gëmlo nit yi ne ñom ñaar mënañ nañu élection avec la complicité dëkk bi ma nous ñoo leen di ñi nga xam ñoo jaay lacrymogène Macky Sall yi ñu leen tay Sénégal pour même personne yooyu noonu ñoom ñoo retiré nationalité Karim Wade pour ñi ñëpp mën a génn xeex ñu retour reculer élection yi Karim du français du sénégalais mom ci bopam Sénégal yittelu ko Karim wad kagn la tek tankam Sénégal commencé fa dund moy bi baay bi nekkee président de la république du Sénégal le wa lañu joggé jógee Koungheul mi man Koungheul ni sax la ko mëna wax ñu wacc Sénégal ñom ñëpp ñu pënd ñun sax on se demander est-ce que Europe lañu joggé mom baay ji ak mère adoptive bi avec sa sœur ñom ñëpp ñu def ben ñu ci lañu wacc nak ñu wacc Sénégal ñom ñent

yéen yàgg ngeen pour jël nguur mu jaral leen ay bakken rot yéen waa PDS ndax ñoom Clédor Sène Samuel Sarr ñoom ñi nekkoon ca oto ñoom ñépp waa PDS lañ PDS ba ñuy tooñ sénégalais yi du tey xanaa tey la sénégalais yi commencé jóg mais bi ñuy tooñ sénégalais yi du tey bakkenu sénégalais yi ba ñuy rot ngir PDS du tey bakkanu Mamadou Diop 2012 ngir PDS du tay comme PDS ça a toujours été le source de notre malheur man 2019 biñuy Macky Sall Nous euh, Wade aéroport ñun opposition bi France dañu Wade il allait changer et être du côté du peuple mais ba signer protocole de Conakry ci la ñu comprendre que ne lay Wade du mës a changé léegi am audio bu ma def sama page Waré Sarr moom moko wax mu ministre de l'intérieur France ak premier ministre génné nañu nationalité Karim ministre de l'intérieur France ak premier ministre ñom ñoo accepté demande Karim Watt pour nous retirer la nationalité les yéen kan mo en même temps arme euh, euh, euh, bombe lacrymogène di dégg journaliste français France mo encore bombe lacrymogène bi len di ray kon Karim Wade bi tax la mais aussi bombe lacrymogène yi len di ils sont complices ou ils sont pas complices ci live bi répondre Bo genyewe nasyonalite karimwa, dene ko deme boko yi ki eleksyon. Mwapade nye jok makisal, e bombe lakrimojen, moun nye tire se popilasyon. Y son komplis ou y son pa komplis. Lek, li nyan defa tiye televizyon yon, teyatre lak. Poukwa teyatre lak? Paske nyonm da nyone makisal, kalmel senegalè yi, bay nou kalmel. Nye nga kante banyi perturbe, nga deme ray len, wèl nge tej len ti kasopi. nga ñëw waxtaan ak opposition bi ne leen dama bëgg jàmm léegi nañu jàpp datu élection yi pourquoi parce que Karim Wade ba dem toog Qatar pendant des années yéen audio sax yónneewu leen ko xanaa jabar sax boo koy doxaan nga dem toog Europe pendant des années pendant douze ans yónneewoo ko sax audio mooy xanaa na boo ko ah man de man nit bu may doxaan pendant douze ans mot là, il dit mot, et je ne suis même pas sûr si le mot, c'est lui qui l'a écrit. Moi, yéen yéen a raw jabaru moodu moodu ñi nga jabaru moodu moodu yoo xam te ne seen dem fële na voyager à l'étranger toog fa pendant douze ans di envoyer SMS bala ñuy ñëw dañuy fekk ben xale bu bu am fulla ci koñ bi ëmbal seen jabar mais yéen waa PDS Yen yéen dof Sénégal Militant yi lay wax Bala may yegg ci leader yi ndax leader yi sax ñom dañuy dil ak Macky Sall ana Omar sa fu mu bokkoon PDS fu mu dem tok ci wotu Macky Sall ba vous n'avez pas compris que le parti parti boobu noonu jaay nañ ko Macky Sall comprendre leen ko déedéet wax bu yegg dof moko ko Macky Sall mon moom PDS mon mon APR les deux partis lui appartiennent PDS parti Laay de la parti famille comme Laay Wàdd mënu ko jox domam bu gor ndax dafa feebar té xool na yéen wa PDS ba ci ba xool na sen bop yi xamna ne ñep ñëpp ñoroo leen Laay dafa xamna ne wa PDS est ouest nord sud xamna na kenn ñorut mu li

ci doulam ak tappaleem ak maguy politique taxna mu dem assemblée nationale ñom ñëpp lañ am retraite ñom ils en ont rien à foutre de l'avenir de tous les Sénégalais mais yéen bakkan bi on ne vit qu'une seule fois yalla def na bombe lacrymogène bi Macky Sall di sànni ci biir dëkk bi yalla def na am ngeen lu leen di fajj te soxla woo leen hôpital tubaab bi demal wutal leen ma cour gu nekk benn kilo kew tant que Macky Sall mu ngi nekk ci pouvoir bi saay boo leen xëyee jël leen benn kuddu kew de temps en temps ngeen def ko ci weeru ndox ngeen naan ko Macky Sall mu ngi empoisonné ndox mi afroi bi ngeen di utiliser mu ngi leen di empoisonné bombe lacrymogène ngeen dem manifester ngeen bañ a manifester yéen a ngi koy noyyi kon ngeen def man li ma leen wax mën na leen sauver li ma wax ko wax ndax bëgg ngeen nañ Covid une bonne partie ngi mais dinañ ci ñeneen vous allez mourir en masse ngeen ngeen ngeen gis nga bi Mamadou Thiongane maa leen nuyu bu baax a baax maramu laayeen bi toog naan dëkk bi jàmm la bëgg moom si boppam Macky Sall nga koy empoisonné te xam ko ndax robinet ba muy naan ndox ma baaxut kireen ba muy naan euh, baaxut marabu yi ngeen fi gis yépp ñuy toog di wax amul kenn ku ciy dund 100 ans parce que lepp lu ñuy utiliser makissal bu ngi leen di empoisonné matin midi soir ñenn ñi pikiir nañ leen pikiiru Covid bi ñenn ñaa ngi dee léegi nag loolu bu amee ñoom s'ils veulent ñu continuer dund lu ñuy dund Macky Sall di leen rey benn par benn mais vous les pauvres citoyens yi nga xamante ne yéen a am problème yéen yéen a war a xool noo leen di amee indépendance du côté santé naka ngeen di amee indépendance ci côté santé.

enfants pour que ñu bañ am handicapé Moi, di wax yéen lam ngeen doon lek ba ngeen ëmbee naka ngeen doon duggé ba ngeen ëmbee pour que ñeneen ñi éviter def la même chose pour ne pas que ñu tomber malade fan ngeen doon dëkk ba ngeen ëmbee parce que c'est très important parce que sinon dëkk bi yépp na jur ay doomu handicapé bombe lacrymogène yi ngeen di noy Macky Sall da ko jox ngeen di noy femme enceinte bu fa romb nooyi ko doomam nooyi ko mooy am risque dom bi juddu am ay séquelles à cause de bombe lacrymogènes yi len Macky Sall defal amna yu bëri da ngeen koy négliger parce que da ngeen naan non non ñun de suñu kër la ñu ñun duñu manifester ne manifester pas yi nga yéen ñi nga xam te gis nañu fan yo xam dañu sànni bombe lacrymogènes bi odeur bi ñëw dugg ci biir kër gi xalé yeb gi sa kët xale buñu paré sa kër pour yéen xale affaire bi dem na mais produit chimique yoy dugg sen bir yaram bi bo leen defulé len maam wax xëy dem jënd ji kew ñëw wol ba mu mok jox xale ñu naan waxuma le ngeen koy yëy comme daf de dedit ngeen jox xale naan yéen ngeen naan ngeen def cure bi pendant une semaine pour bañ produit chimique bobu non dugg ci sen bir yaxi jox yéen yenen sakal yo xamantene do len ko mën fajj

ña doon romb di dox seen soxla tout le monde est concerné képp ku mos a noyyi bombe lacrymogène Macky Sall tu es concerné par ce que je te dis que tu le fasses ou pas ñun nag yàlla daf ñu baaxee on est des êtres de lumière ñun sama genre yi nekk ñu kuy rey ay nit parce que judduwuñu pour rey loolu dafa am ñi nga xam te ne yàlla da leen ko baaxal dafa am ñoo xam te ne judduwuñu pour rey dañu ñëw fu fekk raykatu nit fu fekk ay dëmm ñoom ñooy toog ne leen éviter leen dëmm yi te ni ngeen mënee éviter dëmm yi mooy que chacun même ñu nekk ci diaspora bi ngeen yónnee seen yaay 2000 francs 3000 francs mu dem jënd kilo kew ñu def kiiru kew pendant toute la période bu ñuy def manifestation yi pour empêcher nit yi am ay séquelles demain seen liri pareil libre boko boo lay mënulee jox mu naan bi peut-être parce que ragal nga mais nga koy diw si yaram bi sax day aspirer c'est-à-dire même nga lek nga lek ko nga diw ko sa yaram day aspirer produit chimique bi te yalla def na cher au Sénégal sauvez vos vies et sauvez des vies

am na ñoo xamante ne ñu dem toilette ay raccord la ñuy dugal seen biir yi pour day yi mën a génn ngeen di xam na yàlla kari ñaata nit ñoo fi nekk nekk suñu politicien lekk suñu riba ba toog fii ay raccord lañuy ñuy dugal seen biir yi pour ñu mën a day raccord la ñuy dugal seen biir yi pour ñu mën a saw kon yàlla bañ comme yalla bañ yaram bi ñu may ñu samal ko ko yalla def jox na len ay moyens yo en ngeen sam yaram ngeen di jaay ci ngeen di jaar ci sauvez vos vies c'est très important bi day continuer à long terme ñi ci diaspora man am na ñu dama leen di yónnee ci suuf ne leen jëndal leen kew ne am leen ma may leen dee ko jël di ko jëfandikoo boo leen ci manifestation bi même boo leen ko mënulee naan ngeen koy diw seen yaram parce que même bombe lacrymogène bi boo ko le fait que mu laal sa yaram day dugg sa biir deret et c'est toxique à partir du moment où c'est toxique mën na la gaañ fépp ñii dañoo bon dañoo jeexal Macky Sall il fi fini boo leen demee ba ñoom complot yi ñu def yëpp yëpp yëpp yëpp yëpp yëpp yëpp Fatoumata Dramé maa lay nuyu ba complot Binta maa lay ziar complot yi ñu def yëpp Jacob maa ngi leen nuyu yéen ñi dugg yëpp ñi ma gis seen tur ak ñi ma gisul yëpp maa ngi lay complot yi ñu def yëpp yàlla daf ko jël teg ko ci kaw table bi motax c'est les sénégalais face à leur destin sénégalais lambda ndax sénégalais lambda nga gis ci mbedd bi muy dem di ndax comprendre destin ba en jeu xam tane na bu am égalité des chances mu fayal doomam mu jang école ba bu mu am comme yeneen nit yi da nga war a ci mbedd bi égalité des chances

mais lan moo tax bi diko dak facilement parce que bu woowaatee benen africain kooku day ñëw jël place am c'est-à-dire merde bu benn africain bañ benen africain bi da koy jël c'est valable en France c'est valable au Sénégal parce que le pauvre africain joxul bopam dignité buy wane ne man diw du lek day duma lek day amo len bañ-bañ wala ñu ci gëna a amuñu luñuy bañ. moo tax ñu ci gën a bëri seen dignité jaralu leen yenn yi parce que ñenn ñi dañoo dem ba dañu ignorer ce que c'est que la dignité humaine yi moom dañ ñàkk jom parce que ñàkk jom weesuwul nga sàcc sàcc ba Sénégal yépp est ouest nord sud ñëpp xam ne sàcc nga nga ne fa nga sàccee danga fa war a jiite ñooñu jom dafa xëy ñu gontu ñoñu duñu référence ñi nga tey ñi ñu teg seen kanam ne leen ñii ñooy seen référence ñoñu duñu référence et on est à l'ère du verseau seeni jëfin day gën a feeñ ndax suuf moo leen bañ asamaan yebbi leen ñi nga ñu mel ni Macky Sall nee nañ la sàcc dëgg dëgg dëgg boo ko ci àll bi même jaan du mat màtt da koo mat màtt mooy ngeen gis ni de façade yéen ñi nek terre yéen ñi nek Sénégal yéen a len envie mais ñom ken envie wu parce que duñu ay nit yalla da len sour ils sont vomis motax dafa am wëy boo leen war a wëyal Macky Sall len ko te woy boobu mooy tax Macky nekk en trance mooy ala boni Macky Sall ala boni Macky Sall ñu nga Macky Sall saagaa Kumba Timbo du ko atteindre parce que Kumba Timbo fekkewul fu Macky Sall di sàccee parce que gor du fekkee fañ koy toroxale mais ki ngeen war a ala boni Mon nekk Macky Sall ak tout le Sénégal Sénégal est ouest nord sud C'est wéy xam nga la bonne boni Macky Sall la boni Mansour Faye à ala boni Mansour Faye ala boni Oumy Diallo yaayu Marème Faye à ala boni ala boni ala boni yi tant que sànq yéen di ala boni tremble parce qu'ils savent que le bon Dieu les a maudits La femme ñoo xamante ne yàlla moo leen maudire Macky il est maudit et le sait Macky xam na ne il est maudit Ben nit rek boo ko reyee sa àdduna yàlla da lay maudire waxuma laak nga rey ay nit ñu bëri Abdoulaye Koyta maa lay nuyu baax waxuma laak nga rey ay nit ñu bëri il est tellement maudit ba bu xoolee askanam xool ni ko wër xool li muy créé day bañ boppam ndax mom xamna ni il est maudit léegi nag ñi nga kooku nga xam te ne il est tellement maudit ba il le sent quand tu lui dis que le bon Dieu le maudit day trembler de peur ndax xam na bés buñ ko enterré suuf si day xar ñaar bulli ko ne ko bëgguñu la mos ngeen gis nit koo xam te ne suuf daf ko suur laaj leen ko Macky moo à chaque fois ngeen di woy ala boni Macky ala boni Macky Sall fu mu toog il tremble de peur parce que c'est là où il se rend compte que de tout le mal qu'il est en train de faire sur terre Koumba Timbo defu leen dara la pauvre qu'elle repose en paix mais Oumy Diallo yaayu Marème Faye Sall kooku gis nga yàlla da ko soxlawul nee naa leen yàlla soxlawu leen yàlla da leen di mijoter yàlla moo gën a mën a mijoter yàlla moo mën a dóor ko soxor xam nga Oumy Diallo yàlla mënoon a téye benn tànk bi rek ne ko toogal déedéet tànk bi da ko wàcc muy nëpp ndànk ndànk ndànk ndànk ndànk ndànk ndànk mu nan kan ala boni Oumy Diallo ala boni Oumy Diallo ala boni qu'elle ne peut pas pour être comme les autres Mais elle ne peut pas être comme les autres parce qu'elle est maudite. Il faut utiliser les mots qu'il faut à la place qu'il faut pour répondre aux méchants. Il y a une façon de répondre aux méchants. Il y a une façon de communiquer avec monde. Ça, vous voyez, trembler Parce que il sait pas du yalla du Macky dafa jafur bala muy jël pouvoir bi bamuy wax firaw na béti maa leen nuyu bu baax ba bamuy wax firaw na la jëfur yalla du jum motax chaque mot qu'on sort dans notre bouche est très important chaque mot qu'on sort est très important Fatou Dramé ramé néna ma sénégalais ay tàppet lañu xam nga loolu laa di wax man je vais pas les blâmer gis nga nit sainement. xamantene joxuñu la eau potable tu ne manges pas sainement tu ne peux pas vivre normalement tax sainement ñun suñu sainement da jëli doomu sénégalais nga tek ko fi bu ci suuf lay sandi doomu tuba bu ci mbalit lay c'est fait exprès c'est valable pour les yi génn gis nga di ñi Sénégal normal tu vas compter à peine quelques personnes ñoom xam nañ parce que les yi sont les gens. ñoo leen di téye wala ñàkk les bi di ils sont manifester c'est fait exprès

mais Sénégal yëpp nañu wëy ala boni Macky Sall ala boni Macky Sall ala boni Macky Sall il va vibrer il va trembler Sénégal yëpp bo leen wëyee ala boni Marème Faysal ala boni Oumy Diallo ala boni Oumy Diallo parce que Oumy Diallo vous ne parlez jamais d'elle cette vieille sorcière là da ngeen romb da ngeen wax Mansour vous parlez de tout le monde mais da ngeen di romb Oumy Diallo Oumy Diallo bon yaayu Marème fay bon na quand les gens vous parlent de cette dame là xam lekk lekk lekk koo xam te ne lekk da cee siis yàlla may ko muy lekk bay tuur ci mbalit mais Oumou Diallo tey la gën a siis si lekk xool leen ñi nga xamante ne ñoo gën a alko ci àdduna muy ñi gën a siis si lekk Oumou Diallo yàlla da ko mudi ci lekk yàlla di ko ci àdduna kumba timboo defuñu dara qu'elle repose en paix yi nga Marème Faye Sall da daan fay ay nit ñuy woo kumba timboo yaayu Macky Sall di ko saaga ba muy jooy kon kooku tey lu mu munti def sénégalais yëpp lu mu ñuy saf dara elle est maudite c'est famille qui est maudite

ñun ñu fi tok mel ni nit yi ñu ils sont où ngeen foog ne yàlla existé wu Dieu existe ñu ngi dund sen karma ñom karma dafa metti Macky Sall moo tax booy leble lu baax li nga Macky je sais que oui bii moko moo ko rek tu commences à trembler ala boni Macky Sall jour ne Macky Sall dara ko moy ala boni Macky ala boni Macky mais da ngeen ci yok boni Macky ala boni euh, marène fay boni Oumou Diallo Oumou Diallo ala boni Alim Oumou Diallo di nga lol bo len ko ci yoké di ko pendant une semaine deux semaines trois semaines ñoom sen bop ñoy yenn sen parce que dafa am yenn wax yo xamantene ne vibre vibre yi nga vibration yenn moy yi dafa am yenn moy yo xamantene da fay vibration reuy da fa da fa sori xam nga nga toog sa yaay sa yaay bu la nee je maudis la quand tu es maudit par ta mère tu as peur mais imaginez-vous quelqu'un qui est maudit par toute une population kooku day toog ba day yenn loxoom moo tax wax bi du kumbati mboo de ñun dañuy fayu ba fayul kumbati mboo ñun dañuy fayu ba fayul kumbati mboo saaga ya nga doon yoon yi di ko saaga kumbati ñun dañuy fayu ba fayul su kumbati mooy les vibrations de kumbati day ñëw ci ñun ñu boole kaak ñun suñuy vibration maam boole kaak vibration yàlla Nélène, à ala bonne, matin midi soir ala boni ngeen toog seen fit teuf teuf teuf teuf teuf di nga ci tam ala boni ala boni ah, day trembler de peur la bay parce que buñ len vous êtes maudit par Dieu vibration bobu non xajul ci sen bopp yi ñoom ils sont finis xam nga vous êtes finis Macky Sall indi na ay bombes lacrymogènes pour ray sénégalais yépp mané sénégalais yépp ku ci nekk na dem jënd ji kew ñoo tek diko masque sen yaram yi diko nan. naan war ko ba mu mokk di ko naan mooy dañ leen di jàngal ni ngeen di lekkee kew pour génne les produits chimiques qui sont dans votre corps fas yéene jàkkaarloo Macky Sall ne les ne la ne amatul benn produit chimique bu la tubaab yi di jox bu ñu reyee neex parce qu'on a compris Macky il faudra des gens très courageux avec des tactiques Macky Sall kenn du ko jox rendez-vous ne ko kaay fekk suñu fii ñi nga tànk yeneen ko jox rendez-vous ne ko ñun ñëpp fii la ñuy Da yon kèy do, okazyon mou def plan d'aksyon wè, pou kòl nou mou lèndi rayi. Matisal, moun nou wara nek menèr de jè, c'est-à-di, moun nou wara djèl otoye di tal, bèl nou par bèl. A, ah, mersi boukou Fatoumata Dramey. ah d'accord mais utilise-le tu vas voir les bienfaits du carbone actif te euh, defar encore une vidéo parce que j'ai eu des retours yoo xamante ne franchement euh, je m'attendais pas à ces retours rapides Nous avons ne tey jii dañu amoon problème mu rein amatuñu problème au rein Nous avons ne tey seen diabète stabilisé wu donc euh, faut faut foncer parce que les lu ñu ne lii day il faut y aller. Il man y a des gens que j'aide au Sénégal mais di carbone activé parce que je sais que ça peut aider beaucoup de gens ce qui nous soigne se trouve dans les plantes faut pas aller le chercher ailleurs Pas moi j'ai utilisé le l'artémisia mais le carbone actif est encore mieux soigne mieux que l'artémisia il faut tout juste l'utiliser comme man ni dina len amal njëriñ dina amal njëriñ seen njaboot parce que monde bi ñuy def nii on a besoin de tout ce qui est naturel c'est la nature qui soigne moo tax may wax jeunes yi suñu second combat ma lan protéger nos arbres faire une banque boo xamante ne dinañ am suñu propre graine jéem a protéger notre environnement pour avoir un environnement sain loolu moo war a nekk xeexul a bo xamantene ne qui ci phase fi Macky parce que di ngeen fi génnee Macky Sall il a tellement tué des gens que nelawatul motax say saay boo leen di woy à len di def ala boni Macky Sall ala boni Macky Sall ala boni Oumou Diallo ala boni Oumou Diallo Mansour Faye mo ndax jabet bi mu am fu mu toll di fomp yaram bi ñoom ñëpp ñu ngi dund seen karma moo tax les gens qui envient les gens qui ont de l'argent man j'envie pas les gens qui ont de l'argent parce que xaw ma nu ñu def ba am seen xaalis parce que ji nga ñàkk ñàkk jëriñu dafa neex même bu dee cinquante centimes ngay gagné par weer mais mu wër la ne ya ko momal sa bop nga duggal ko sa biir dalay lew nga duggal ko sa biiru doom dalay lew ñëkk jariñu moy aar nit nga politiciens yi ngeen di gis muy sacc yépp di ci jëriñu amul kenn kuy tekki karma ngi leen di xaar parce que rongo ñu doora bu ñu jël di ko sen kéré kere kere lu mu plus moy dugg sen biir ay sax lay doon sen biir moo tax ñoom ñëpp ils sont malades il y pas un koo ci wax mu nel dama feebar feebar boo xam te ne kenn mu leen a faj kenn du leen mën a faj kenn du leen mës a a faj tey boo leen xoolee Moustapha Niass ñaata année mu ngi ci assemblée nationale looleen ko fay mu dem fajoo ko loo leen ko fay mu dem fajoo ko gisagoo leen dara Senghor da daan rey comme Macky Sall est-ce que Senghor am na sëtam bu ko doon déedéet. Senghor ba mu doon rey comme Macky Sall yàlla dafa xool doomam ba mu gënoon bëgg def ci espoir am mu ne ko comme yow da jël espoiru nit yi di leen rey man doom ba nga gën a bëgg dama koy rey mu di ko nakkarlu di ko nakkarlu mooy jël lui a fait si biir qu'il a fait subir aux autres mhm. kan moo doon so Senghor lu mu ñu toroxal yëpp yëpp ñu mu toroxaloon yëpp benn guddi yàlla fajal na leen seen soxla léegi Macky Sall mi toog fii soxor bi mu soxor ci ñun yépp saay bu xëyee yàlla ñu koy fajal ci moom mhm. ndax ay ballon la jur ballon te big bul lu jur yàlla mu nekk mu ñu feju mooy saay bu ñu rayee rek naqar lay jur ci moom saay bu ñu dóoree ñaqar lay jur ci moom te naqar lay wàcc di wàcc di wàcc di wàcc di wàcc di wàcc di wàcc big bul mu ngi nii big bul cucu bi du fonctionné big bul big bul ba léegi takk na jabar déggoo leen mu ngénte ngeen foog ne ne dina ngénte tànk mu ngi rey doomu jàmbur yi bonheur duñ ko am seen kër kon jéem door paa ba leen foogee ne yàlla dafa jël baadoole yi sànni leen ci mbedd bi rekk ngeen leen di dëggate di dem rek te du am conséquence nax ngeen seen bopp Cissé Lô ba muy jël ay nerf yi di leen jël ñuy dóor jàmbur yi di rey Cissé Lô fu mu mujjee doomam gaañewul yàlla wan na ko lan la doom sa doom nan la nan la nit bu doomam gaañoo nu muy méttee ci xol doomam gaañu suul na doomam doomu jàmbur yi ngeen di rey ah ni nga leen di reyee muy métti ci ñoom ñi wàccee seen ronge noonu la yàlla di reyee sen doom yi ngeen xam lan moo ci nit toog gis doomam muy dee moo tax ñu naan Dieu a dit aime ton prochain comme toi-même continuer leen di rey de ni ngeen di reyee noonu la leen yàlla di reyee recruteur de nervi yi yëpp yëpp yëpp yëpp yëpp ana papu euh, ana papu Barthélémy Dias prostate ni ngeen di reyee nit yi ngeen foog ne yàlla da leen jël dafa jël nit yi rek sànni leen ci mbedd bi pour ñeen leen di rey ni ngeen leen di reyee noonu lay feeñee seen njaboot li na da di top si seen njaboot da ngeen nyom gis nyom ñëpp ñu ngi gis ñoom ñu ngi dund seen karma ñun ñoo foog ne ñun ñooy dund karma parce que duñu karma bi gën karma bi la yàlla karma bu la nit sur terre un jour mën nga mais karma bi leen yalla tek ñom Gaston beng bu mënoon delu si wat ginnaaw foog naa bu ko yalla genné won prostate bi tegaat ko fi dotul saagaati sénégalais dotul recruter ti ay nervi triandé ti ay dotul dundé ti ay riba c'est valable aussi pour yenn gel yi nek Sénégal xam ñen ñi néna ñom ñu sen yoon néwul ci xeex bi c'est pas votre problème yenn bo len amé lo len xéssal baxna tay deglu na ki ñuy wax Mame jaay Savon mu ne moom ndeysaan sëñ Touba moko jappalé jàppale ba mu genn ci limi def ni moko jappalé pour muy jaay xeesal di jox nit yi cancer mom man ci ce que j'ai compris hein moko jappalé pour mu jox nit yi cancer mais gis nga ni muy jaayee nit yi xéssal ñoñu bu ñu jël sen cancer ñoñu au même moment mom ci lay chopé cancer am nag yi nga karma cancer bi muy jox nit yi. mooy médicament yu bon yu muy jox nit yi ñu euh, diw yu bon yu muy jox nit yi parce que diw yooyu noonu amanaa moom sax du ko diwoo mais le fekk que mu koy njamb di ko di ko manipuler mu ngi dugg ci biir loxoom mu ngi dugg ci biir yaramam ñële au même moment ñuy cancer moom maam Ndiaye sax moom jour boobu lay cancer boobu nag la karmaam di commencé bu boobaa dina xool ndax am xeesal ba muy jaay tey jii nii. ah te xam kee xeesal boobu noonu te xam yàlla moo ko dimbali te yàlla moo ko génne ci nool ndax nit mun na am xaalis di diñ ma nit xaalis boo koy gañee danga ciy xool sa digganteex yàlla xaalis booy dangay xool ñi di jaay baar yi ak ñi nga xam te dañuy jël drogue di ko jaay nit yi ñu dem def overdose yi dee ñoom balaa ñuy dee dañuy overdose c'est valable pour Mame sa moom Chams maa lay nuyu bu baax a baax léegi ñëwaat encore ci Macky Sall ak politicien yi Macky tey mu ngi dund karmaam mais politicien Sénégal yépp ñu ngi dund seen karmaam képp ku ci mas a xaalisu askan bi yaa ngi dund sa karmaam ñoom xamuñu sax lan moo tax ñu ñëwaat ku ci nekk bëgg nekk président bëgg a ci affaire bi leen

tuddewu ko yen mbaaɗoole e ken ɗulen tuddee ñoom entre ñoom ñoom politicien et politicien dañuy tuddante ay doom dañuy demante ay ngénte Aïda Mbodj doomam Macky Sall la ko bàyyalee bàyyale wuñ ko baadoole bi de ñoom entre ñoom ñooy ëmbalante ñooy sëyante ñooy dugalante ñooy biisuwante ñooy demante ñooy demante lépp entre ñoom mooy dañuy sàcc suñu xaalis ba pare di sëyante seen biir pour dërëm bi mu génn ci gaal bi léegi nag yàlla def na yéen ñi seen doom yi di sëyante ngeen di biisonte ngeen di andante di demante ay mariage di demante ay restaurant di demante lépp té devant tous les Sénégalais vous faites semblant de ne pas être ensemble comme ni France di woné né mom moom yoonam nekkul ci politiku Sénégal mais ci souf mu ngi jaay ay bombes lacrymogènes Macky Sall ci souf mu ngi jox Karim Wade passeport mu ngi koy mu mu accepté na mu renoncer nationalité cette grande hypocrisie boo xam te ne yàlla dafa ñëw feeñal ko devant tous les sénégalais te yéen da nekk ay mag yoo xam te ne amoo leen jom doo leen rus amoo leen rusukaay da ngeen ñàkk rusukaay ba seen doom yi ñàkk rusukaay ngeen dundee riba ba seen doom yi yëpp c'est des drogués seen doom yi yëpp c'est c'est des drogués Macky Sall ko wër yëpp c'est des drogués Jules

Si vous êtes alcoolique aussi c'est pas ni nan ay vin ni ay chivas la ñuy ay whisky alcool dur alcool dur donc quand tu sais qu'il est alcoolique ba va parler utiliser drogue dure Ni que l'économie de tout ton peuple nga avons ko ci chefs religieux ils utilisent la même chose pas tout le monde mais il y en a qui utilisent la même chose sànq dama taal sama télé sama portable ma gis benn marabu bo xam te fa nan ba mandi di wax taalibe ne est-ce que gis ngeen ko yalla ko wax lo yalla ko wax lo depuis quand yalla di wax lo sulaar sulaar nga xamante ne ça veut dire que moom àndul ak xelam yàlla dina xol ku àndul la xelam ne ko waxal ma yalla buy ne nit waxal ma day xol ko xamante ne ànd naa xelam donc nous, ñëpp ñëw toog Jules Diop bi muy ne Macky Sall la na Maroc ak jabaram laaj leen ko maam nee na lan la toxoon parce que pour man il n'était pas normal ngeen baal pas ak mais pour man il n'était pas normal parce que Macky Sall bu nekkee au pouvoir pareegul mandaawam ñu ne déménagé na Maroc et Marie Macky Sall balaa mu doon nekk balaa mu balaa président de la république Sénégal de dëkkoon Macky Sall buy déménager Maroc xanaa a day delloo caabi caabi dëkk bi ne nekkatuma président donc kooku bu devant l'opinion internationale di wax loolu c'est parce que ñun ci boppam amuñu respect ci ñun léegi comme amuñu man bañu manit, nit bañ maa respecté parce que respect mënoo ko forcer nit respecté la mënuñu forcer nit respecté mais ñun dañu respecter suñu bop xam nga ñu respecter suñu bop moy population bi si boppam ñu jël sen avenir entre leurs mains dem leen récupérer sen dëkk d'abord ngeen dogay xol ci loxo kan ngeen koy tek dem leen récupérer sen dëkk d'abord après ngeen xol ci loxo kan ngeen koy tek sinon business lay doon entre eux dañ koy def balu ping pong ki bu paree paas ko diw ki bu paree paas ko diw parce que ñom buñu ñu de dañuy réunir moo ak Sall ne day demander dialogue national pour ñu toogaat seen biir ñu xol kan lañuy passe paas bal bi parce que affaire bi balu ping pong la nañ ko passe diw buñ ko parce que moom moo gën a nax population bi léegi diw bu lekkee ba sour ñu paasaat ko diw. moo tax nga gis Macky Sall ba mu ñëwee est jàpp na sàcc yi nekkoon ci Laay Wade noo jàpp leen Abdou ba mu ñëwee euh, Laay Wade ba mu ñëwee est jàpp na sàcc yi nekkoon ci mat euh, Abdou Diouf non non parce que affaire bi balu ping pong la dañ koy paasante ku pare jox sa morom boo lekkee ba suur jox sa morom sa morom bu ñëwee protéger la moo tax Macky Sall ne il faut que ñun ñëpp ñu toogaat ak opposition bi ñu xool kan la paas bal bi France ne ko. ki ngeen di paas bal bi assuré leen ne ne bu fi toogee moo tax ñu leen dialogue ba ndigi ñu leen dialogue pour que ñu ñoom ñu toogaat seen biir ñoom politiciens yi ils font pas mille personnes hein. motuñu mille personnes hein. c'est des centaines de personnes ñoom ñooy toogaat fii xool kan la ñuy paasaat bal bi ka ñuy paasaat bal bi il en a rien à foutre ngeen am hôpital bu baax il en a rien à foutre ngeen am école yu baax tali yu baax ñun ñoo am framason maçon yu gën a ñàkk jom sur terre la preuve en est que Idrissa Seck franc-maçon la nee na moom ci buntu kër euh, école franc-maçon yi la doon taxaw di xaar pour ñu embaucher ko pour mu raxas boor pour xool ñoom naka la ñuy def ku wàcc ku génn ca école ba rek mu xool yow lan ngeen fay wax pour mun a xam naka la franc-maçon yi di dundee. dina leen wax ñun soxlawuñu dugg ci école framason yi pour xam lan mooy franc-maçon dem jàngi. li nga boo leen duggee ci internet boo leen demee xool lan moo nekk seen avenir ñoom nee nañ dem leen occuper hôpitaux yi dem leen occuper occuper école yi ñoom hôpitaux yi école yi moo nekk seen cible moo tax tey bu maam taxawee neleen leen ne xale yii nooy yi tout ce chimique ak yéen ñiy afro seen doom yi dem leen ngeen jënd ci kew yi di def masque pour seen doom yi muy masque yaram mu nek masque bop mu nek masque ci serviette hygiénique mu nek ci masque partie intime dé leen utiliser argile pour génnee produits chimiques, yi nga xamante ne moom la leen tuba bi togal pour ngén dee ngir cancer c'est facile ñaata le keew di jar kilo keew Sénégal bo demee ñaata ngay jar à peine 1400. 1500 yenn say sa mën nga ko am 700 francs bo pare nga walal ko sa bop lolu mën sauver sa vie sauver sa bakkan si vous ne le faites pas ils vont vous tuer bo len ko defulee dañ len di ray parce que dañu ñëw pour ray len lima len di wax yépp man dama ko tester ci sama yaram man dama ko tester sama yaram mu gis ci rendement.

afroi bi moo ñu koy jox produit chimique yi kan moo ñu ko indi ñun defaruñ ko de tubaab yee ko indi lépp lu toxik tubaab bee ko indi kan moo ñu indil jimbo tubaab bi maintenant entre tout ce qui est toxique qu'on consomme ak bombe lacrymogène yi leen Macky Sall indil mais loolu yëpp boo leen ko boolee seen yaram mais doo leen dund dund bu yàgg ci feebar ngeen di dëkk ci jur ay doom yu handicapé ngeen di parce que yaay ji bu feebaree yaay ji bu normalulee yaay ji bu bëree ay produits chimiques ci biir bi kooku mënul jur dom bu normal légui néna il refoule le pétrole le gaz et le zircon fofu nak lay ñëwee parce que gis nga France deug la mo ngi profito di profito di profito mais dafa un point fort en France Moi, ils savent sentir les choses France moi, je ne tard nous indépendance depuis pas mal d'années nous avons développé panneaux solaires Nous, nous ñu ngi panneau photovoltaïque ci panneau solaire ñu ne avons soleil nos dem ci panneau photovoltaïque yi lumière du jour c'est une population pour que nous ayons le maximum d'autonomie Nous, nous prévenir nous prévoir ce qui doit arriver parce que ça arrivera tôt ou tard mais nous, qu'est-ce qu'on a prévu on n'a rien prévu Nous avons une France nous avons chance nous suñu Nous nous pétrole transformer et qui sont des gens honnêtes tey on a un million d'enfants dans la rue qui ne vont pas à l'école zéro savoir zircon bi ñun dañuy romb zircon xamuñu sax lan moy zircon ndax jàngaluñu ko école xamuñu fu zircon bi nek ndax kenn jàngaluñu ko dëkk bu nek dañuy jangal géographie dëkk bi la fa mais ñun kenn jàngaluñu dara zion maa leen bu baax ñun kenn jàngaluñu dara te ñun duñu dem def ji ay recherche léegi maintenant il faut qu'on aille vers les recherches il faut qu'on aille voir qu'est-ce qu'il y a nee naa leen Barthélemy Dias ya nek ngay Mexe ngay Mexe amna pétrole pourtant wa ngay lan lañu défar ay dal lan la waa ngay di défar ay dal ak sac wa ngay boo leen ngay amna pétrole dañ nan ah ngay, dé amul pétrole ñu né fan la pétrole bi wara nek bo démé demee Gosaas nga ne phosphate dañ nan phosphate bi phosphate bi fan la nek wa Gosaas xëy ñu ngi rom tous les jours phosphate te gisuñu ko man jangé na Gosaas dernier pendant 4 ans mosuma gis phosphate xawma sax couleur phosphate légui ñom ils ont tout pris entre eux ñom xam nañu sen doom couleur phosphate amna ko mu nek to len ko fenn fenn fenn après avoir fait le théâtre national jouer le théâtre en 2019 gisatoo len fenn mu ngi dem toog fële Touba fa ñuy héberger sàcc politique yi tous les voleurs politiques yi vont foofu moo nekk hôtelu sàcckatu politique yi. yi nga seen hôtel 5 étoiles moo nekk Touba nee na bàyyax la nekk am na ay tool yu nekk mm-hmm. ngaay mexe baat li mu jaar li mu am teere ngaay laay wàdd sax amu ko ngaay mais laaj ko man ndax sont yi am de pétrole leen leen ñu naan annuler élection reporter élection c'est un théâtre parce que dañu séddoo Laay waat bi ngeen ko falee dafa def cartographie Sénégal tranchel boppam moom li mu moom yëpp ne lii ak bëgg Omar ça ñu def ko un sénégalais un toi mu wo politicien yëpp laaj leen ñom Woré sar laaj leen ñom mam Diarra Fam da xam am nañu ci un sénégalais un toi ndax ñun suñu yaay amuñu ko suñu mbokk yi amuñu ko ñun xam nga lan lañu am droit di fay loi yi li constitution bi wax ne bo dëkkee ci koñ mu am terrain bo xam te état bi moko mom yo yow fo foo dëkk mën nga def demande bi ñu may la ko loolu c'est pas valable pour la population sénégalaise c'est pourtant am nañ ci droit. léegi ñoom ñu séddoo lépp fenn de lañu séddoo ndax yabuñu leen mu nekk sama village ba fële na ne boo leen demee côté Palmarin côté boobu noonu foofu dañu am aada foofu bu ñuy dof doflu moo tax ñu ne sàcc xam na kër gu am xaj bu ñuy dof doflu ba ñëw ne dañuy buddi ay baobab dañuy sànc ay nit bañ ko defee waa dëkk ba ba ñu génnee ñoom soxlawuñu avocat ñoom mën nañu jooy seen dëkk. ñun suñu waa village mun nañ jooy seen dëkk Macky xam na fu muy ne tong tong tong tong dem récupérer mais bu demee ba yegg si ba ci yegg si village yi la muy dof lu yëpp waxam bu autoritaire bi yëpp li muy réew réew réew yëpp xam na fu ko jëmalee ndax xam nañu fa ñuy ne tong tong tong tong tong ñoom ñu ngi toog leen xaar dégg ngeen la preuve en est yëkkati woon ngeen jox ko indien yi ba leen koy delloo te teyoo leen ka léegi nag ñoom comme xam nañu dëkk bi am xaj ñoom xam nañ de ñun suñu wa dëkk woowu ñu ay ndengeleer ay toog fii di woo télévision yi appelé bay maire yi ba ñu génnee jonkon dañ leen delloo seen yëf tout de suite ils ont même pas rigolé li nga la ñuy tracé di jël toolu maamu jàmbur yëpp yëpp yëpp yëpp yëpp jékki-jékki ne toolu maam bii dama koy nangu bu ñu yegsee ba ci benn dëkk xam nañ fan la ñu ne <laughs> xam nañu fan la ñu ne tong tong tong tong fii lañuy ñuy mën nañu seddoo toolu maamu ñëpp mais ba ñu yee ba ñu rombee ba ñu rombee yenn kër yenn dëkk yi mën nañ ko defee mais am na yenn dëkk parce que dëkk yi dañ koy def ay dëkku sancaan lañu mais dëkk yenn ci cosaanoo mu wóor leen ne seen cosaan ak seen maam du cosaan yi yëpp la ñuy déplacé léegi nag bu ñu ñëwee ci ala boni Macky Sall parce que Macky il est maudit Marème Faye elle est maudite moo tax ñoom mënuñu belli Les am mais mënuñu normal mënuñu mel comme nit yi ils peuvent pas être épanouis Marième Faisal, elle fait semblant d'être épanouie bo déggee mu naan waa damay ambiance mais elle essaie de cacher sa misère galère bi mu am intérieurement li kay hanté intérieurement lol lay djema neub nëbb yooyu len di joy ci kanamu Macky Sall muy jël sen énergie arrêtez de lui donner vos énergies mérito wu ko nit ki da ngay jooy ci kanam koo xam te ne am na xol kooku dalay jox énergie positive mais di nga dëmm ku soxor ku bon booy jooy ci kanamam danga koy dooleel dëmm lu koy lu koy jox plaisir mooy nga toog ci kanamam di ko jooy góor yi bàyyi leen di jooy mère de famille bàyyi leen di jooy jar na ngeen toog boo leen amee lu leen metti ngeen toog seen rukk jooy ko ba seen rongañ fer mais bu leen nangooti Macky Sall di gis seen rongoñ tant que Macky Sall mu ngi gis seen rongoñ ci malheur rek ngeen di dëkk parce que seen rongoñ mooy siñ siñ cereem énergie yëpp Macky balaa ngeen gis mu kontaan mooy ngeen toog di jooy di ñaxtu ne rey na rey na seen doom yeneen toog di c'est vrai que ça fait mal mais Macky bu reyee seen doom nee na ko kii nga rey nii bàyyi nañ laa borom bët bu rëy bi nga ne ko ala booni Macky Sall ala boo Macky Sall su nga parole yooyu noonu énergie bi muy def vibration bi muy def ci Macky boo leen ko xamoon saay boo leen xëyee loolu ngeen di wax def na ko ba am na benn village yu alpulaar boo xam te ne dañoo génnoon Nyon bèm wèk lèk lèk lèk lèk lèk, alè bouni makisal, alè bouni makisal. Paske khamnen lèk lèk lèk lèk lèk, mounèk lèk lèk lèk lèk, moun moun kwe mèd. Moun yi swa moudi makisal. Yon yon lèk boun kwe moudire, boun kwe wèk vilaj, yon kwe moudire. Tè kè gè gèk yon khamnen lèk, kwen ti son moudi partoutan vilaj, tè yon yèm nou sèm lèk lèk lèk. amna ñoo xamante sont maudits par tout un village mm, mm. dañuy jek jek dañuy dof Comment c'est maudire Macky Sall parce que yalla da ko maudire Macky il est mort il est cuit ñi nga bi ma ñu def ñen def yu soxor population bi ñu lu soxor sax fuy metti population française yëguñu sax luy métti tax ñoom nit ñuy naxee ñun ñoom noonu lañ leen di naxee parce que dañ leen tegal ay télévision yoo xam te dañ leen di endormir ñoom yëguñu luy xew français moo nekk dame nature koo xam te ne yëgul lu bëri mais gis nga politique yi nga xam te ne ñoo nekk ci kaw tey boo leen demee Côte d'Ivoire kan moo fa am ay champs cacao dañ la naan Chirac famille Chirac am nañ fa ay ay ay champs cacao

Amadou amul xarit amul xarit amul kenn ku ko bëgg ku leen ne xaritu Amadou la moom xam na ne amul parce que ñi ko topp yëpp yëpp yëpp yëpp yëpp toppee wuñ ko dara lu dul malheureusement comme son père est maudit yaayam tamit elle est maudite karma boobu non, moom moo wàcc ci doom yi malheureusement mënuñu échapper à leur sort parce que ku sa yaay rey ku sa baay rey foo jaar dangay fay léegi da nga wax ne Marème Faye ak Oumou Diallo parce que Oumou Diallo il faut ngeen di wax ci Oumou Diallo parce que c'est la dame la plus mauvaise au Sénégal sànge maa leen yu ba di nga ki gën a bon Sénégal mooy yaayu Marème fay Sall kon yaay bu bonee mënul jur ay doom yu baax Oumou Diallo ay maire ñoo dem seen ñoo dem kër Oumou Diallo fe di seeti ji Mansour Faye xiif bay bëgg a dee Oumou Diallo lekk ba suur mu des ay ngandu maamu tëllu jën mindaan bi di romb meer yi ne mindaan bi jëlal ceeb bi des nga defal ñu ko ci mbuus bu ñu yeggee suñu kër tàngal ko Oumou Diallo woo mindaan bi ba mu ñëw mu ne ko dama ne nga jël ceeb bi dem sànni ko ci mbalit noonu la mbindaan bi rombaate maire yi dem jël ceeb bi dégg naa ay tullu coof yoo xamante ne dañoo lekk mu mel ni bool bi kenn lekk ko desit bi jaral na ko mu dem tuur ko ci mbalit que mu ko di ko jox ay sénégalais yoo xam te dañoo xiif mais ku la munta may desitu ceeb naka la la mënee kooku kooku boo doon dee ci kanamam sax il en a rien à foutre moo tax saay boo leen xëyee ne ala boni ummi jàllo ala boni ummi jàllo umi Diallo yalla da ko maudire ba nga xamantene yalla soxla soxlaagu la de umi Diallo umi Diallo Dieu n'a pas encore besoin de toi umi Diallo ji nga sa tank bobu non yalla fi la koy tek muy nëpp amna ñi am ben tank sen tank na but mais yow yalla fi la lay tek pendant des années ñi ñi ñi nga xamantene sen seen ñoo ama ndox yow ben tank yëpp de nañ ndax yalla da leen épargner souffrance mais yow umu Diallo dinga am kër États-Unis dinga am kër France di nga am kër fépp fépp fépp fépp fépp mais kër yooyu boo demee ba dugg ci toog duleur yi ngay dund day tax ba yow doo sentir plaisiru kër gi karma ñi ngeen rey Macky sàll kenn mosu ko fal dara ci àdduna Macky kenn mosu ko fal dara pourquoi il est malheureux Macky Fatick il n'a pas été élu maire de Fatick Koudé la remplacé kon Fatick a ko woon maire Adjoa la woon Koudé la remplacé 2012 il est devenu président par accident kon nous, ñëpp kon Sénégalais yëpp jóguñu fal Macky Sall de déedéet opposition coalition moo fal Macky Sall Macky Sall ko fal 2019 il a été vomi par plus de la moitié des Sénégalais Mon sàcc élection Macky kenn mosu ko fal dara dara dara dara dara daara daara koy nommé mais yéen mosoo l'en xam ne Macky Sall ko fal dara dara dara. yéen a naan il a été élu comme président de la République kenn mosu ko fal moy ñu tok ñu ne sénégalais yëpp nek nekk na Macky Sall Macky Sall ko fal dara il est malheureux parce que mosul am plaisir ay nit di ko fal il a été nommé par la euh, par à des postes de ministre mais ay nit tok ni ñun ñëpp Macky Sall lañu andal Macky am comme ni ko Sonko Macky am la preuve en est que Jules Diop nee na bu ñu toogee ba Macky Sall la am parti politique nga xam ne Sénégal am na problème xam nga Jules Diop bi ñu faire comprendre que ne Macky boobu bu ñu waatee toog ci plateau lu mu munti wax ci Macky Sall moom moo ñu waxoon ne Macky normal y a un problème léegi yéen waa PDS yéen Laye moo fi newoon Macky Sall dëmm la Laye Wade moo ko wax vidéo yaa ngi fi. léegi yéen yéen a dem associer dëmm bi <laughs> yéen yéen a wax ne dëmm la de man ne dëgg-dëgg bu ma nee ni diw dëmm la ah du dem di associé moom pour mun a bokk ci ay élection Laay Wàdd xam nga nit ki boo toogee ci kanamu sénégalais yëpp nga ne Macky Sall dëmm la mais loolu c'est dans la tête de Macky Sall kon yéen waa PDS foog ngeen ne Macky Sall dina yëkkati pouvoir bi teg ko seen loxo noonu gratuitement. Lai Wad, leen du président de la république du Sénégal parce que devant tous les sénégalais Macky Sall dëmm ah, Macky Sall du jël bal bi ko Karim mais comme PDS vous êtes tellement bêtes amo leen analyse politique militants yi amuñu analyse politique parce que militants yi ci intelligent ñom dem nañu militants vous n'êtes pas intelligent parce que si vous êtes intelligent vous avez di parti ndax qui ci ndab li souffle, ndax n'avez utiliser. que Macky devant tous les Sénégalais vous Macky Sall dëmm la Vous Macky Sall bu Macky Sall Macky Sall Macky vous la sur terre nga une Californie lambar lambar dañuy

L'enfant, mais il ne s'est pas vengé. Si, il s'est vengé. Moi, je récupère partie. Il s'est vengé d'une manière très, très, très diplomate. Moi, durant toute votre vie, y il a un Macky Sall ngeen di servir ba jour bi ngeen di am cerveau comprendre votre douleur Ben. Khalifa Sall dafa ne n'a naa bokk

gis nga booy xeex ak du doole mooy ga mooy daanal pataax xel mooy daanal pataax jigéen buy xeex ak góor xel mooy daanal góor da gis jigéen yoo xam ne dañuy dóor góor ba mu daan te pourtant góor gee leen ëpp doole xel fenn ngeen ëppee doole Macky Sall muy taal fenn ngeen ëppee doole nervi muy safara bës boo leen commencé taal fenn ngeen ëppee doole France mooy taal parce que le temps que ñuy indi ay hélicoptère ba ñuy fay safara bi ñoom sax dañuy ils seront perdus parce que ñoom seen bopp ñuy gën a ëpp la ñuy ñàkk gis nga bés boo leen commencé taal marabu bi dina génn paa yu bëggaloon wax nañ génn. Nous sommes dinañ les maintenant si vous voulez vous restez là on vous tire vous mourrez Vous avez neexee front man un pistolet lacrymogène dem songu policier Vous avez fu mu vous avez ma Je ko fa yi nekk banlieue France bombe pistolet Nous allumette waxuñu kenn yónnee ma xaalis benn allumettu cent franc taal na ñaata oto réservoir bi ngeen di ubbi cos allumette oto yépp am essence yi nga loolu boo leen ko commencé def ñi am oto dinañ génn wax ñi am ay bien dañuy génn wax politiciens dañ génn wax nañ xam ne c'est la

nit ki boo amulee xaalis da ngay utiliser sa xel da nga nit ki boo xëyee le matin amoo xaalis te mu wóor na nga wara lek bo utiliser wul sa xel do lek nit ki boo xam dañ la note te amo xaalis da ngay utiliser sa xel seen xel moy nan allumette ngeen soxla allumette allumette allumette soxla wala jënd essence soxla wala jënd dara allumette ngeen soxla ngeen def comme bat boy auto boo leen romb kos alimet dugal ci bir daw kos alimet dugal ci bir daw def sen bo kii ni ngi waxate masque ñu def sen masque cos alimet daw kos alimet daw parce que le temps que alimet bi di di essence bi di lal essence auto bi dina def quelques secondes t'as le temps de fuir li nga boo ko commencé def ben auto bu Des demb gis man dama analyser policier safara bu ndaw sax il peine à ñu sax ñuy ñu ngi jël nan Nous xamuñu ñu def panique générale ñu ngi Nous safara bi ba ñu ñi daw sa adversaire da ngay mom da ngay xol point faible point faible bobu non bo ko maîtriser rek vous savez tout maîtriser. groupe de 10 ngén di doon pas plus té buñu né groupe de 10 moy ñi nga bokal ko ñi sa vrai copain ñi nga xamante ne ñii xam nga duñ la mësa yolé wala groupe de 5 wala nga nek solitaire sax lu solitaire ngén di doon mu wër la ne kenn du yolé kenn goudi fi ni ben nit rek ben nit mëna ta 30 auto ben nit kessé bu ñëpp di nelaw ngay génn di taal di taal di taal di nga waa koñ bi bu ñu commencé di nelaw dégg sa xarala bi di ñëw ñoom ñëppay génn seen biir kër mbedd bi day fees day la nit rek ngeen commencé makk yi day gaaj makk yi day gaaj da nit yi génn tout suite ñoom ñëpp mbedd bi yëpp dañuy génn dem leen benn koñ rek ngeen taal fa 30 oto ñi nekkoon ci kër gi yëpp ay da ngeen gis xale ndaw yi ñëpp la ñuy génn dem ci mbedd bi bu mbedd bi feesee dell rek ngeen def direction parce que yam dëkk boo xam te ne nit yi. tant que amul danger bu len di getee ñom duñu ñu sen biir kër parce que kër yi légui làqukaayu kayu tapeti yëpp ñu fa dem làqatu ji tàppet yi ñu ngi làqatu ci kër yi li pour génnee tapeti ak bulee Macky Sall d'une manière efficace parce que plus ngeen di xaar dina am temps wu dem jëli jiwaat commandé waat yeneen bombe lacrymogène est-ce que sen yaay dañoo jur ñuy respirer lacrymogène

mais boo yoree ben allumette mos ngeen gis kuñu japp jàpp parce que dafa yoré allumette non te pourtant allumette mo yak mo mo gëna a def dégâts sur terre mais duñu japp jàpp kenn ndax yore na ben allumette Macky Sall mënu leen tere yoré ben allumette nee est-ce que da nga billet gis nga lii la ji nga ji nga benn allumette boo leen ko taalee man dama nekk Gossas dëkk benn pyromane boo xam te ne li mu taal ci village bi kenn xamul nu mu toll kenn mosu koo jàpp dañuy jékki-jékki rek gis kaasu nit mu ngi tàkk yi nga waa APR lu ñu gën a ragal sur boo commencé boo leen gisee ñu commencé génn ci commentaire yi di wax rek safara lañu ragal ndaxte ñoom dañu am ay bien li ñu sàcc yépp mu ngi biir Sénégal sen xaliss yaa ngi seen biir France safara la ragal ndax safara bu takke ci biir Auchan yéen la boo leen Auchan de parce que yeen bo len duggee ci Auchan da ngeen di saccagé génn mais gis nga bo len jëloon Auchan bo len saccagé ba pare ngeen soti fa essence taal lépp ndayam mu wóor la ni il va falloir des mois pour peinturer pour défarrer pour ratala <laughs> denc lu efficace parce que yéen da ngeen di saccagé mais doo leen taal te mooy pare ñu tiire len man weddiwuma ñu tiire ma de mais bala may dé dina foog ci benn sequel bo xamante xolén koku ñu tiire lan lan lan tax ñu tiire ko ba mu dee parce que dafa demoon fofu di jaay ay bracelet di wut lu mu lek xam li lay waxati nga dem ci manifestation mu wóor la ne fi amna ay tiire bal au moins bu ben auto wala mu rey policier wala mu def lo au moins xam lan mu mais ñu bari ils vont mourir bêtement man je veux bien mourir mais bu may dé ma dé ci jar c'est-à-dire ma def lo xamanteni ne ji bu ma deewee nañ xam ne man def na li ñu xam ne na mais faut pas mourir bêtement il faut savoir poser des actes

man bok na ci ñu bokk waccal Macky Sall parce que da ngay xam fuy dóor sa cible da ngay xam fuy dóor et au moment opportun fuy dóor léegi nag xale fi ngeen wara a instant bi moy sen koñ ne cherchez pas à comprendre soyez des bad boy comme ni manifestance tuba bi di def lo romb cage lo romb taal lo romb day perdre contrôle bi instant bi le contrôle parce que taaloo len assez de Il y a pas assez de feu li ngeen di essence Il essence jox len ko essence réservoir yi dañ koy diviser diviser rek rek c'est plus facile.

foofu tamit dañ ko war a taal da ngeen war a viser seen cible yi cible yoo xamante ne yéen doo leen raté Macky Sall parce que caméra boo leen ci yàq Macky Sall balaa mu koy pose waat ça va mettre du temps benn foo leen xam ne nerf yi fa la dëkk da leen commencé di rëbb këru nerf yi c'est-à-dire ñi nekk Pikine mun nañu signaler ñu nekk Géejawaay ne leen ne kër gi am na nerf yi mais yow du yow yaay noq nervi bi nekk sa koñ de danga koy signaler ci beneen nervi benn yeneen boy yi nekk yeneen koñ ñoom ñooy ñëw téegal nayu nervi bi léegi policier c'est pareil comme dañuy dóor ay jigéen koñ bu nekk am nay policier amul sama voisin la ou pas ay pour ay dans pour temps ndax El Capo jël na xeer dóor fi benn xale Cees xale bi dee te xorom la doon jëndi di nga boo leen commencé dem si seen kër yi cible ci ñaar ñett rey léegi ñeneen ñi commencé tiit fi ngeen jëm nii boo arrêté xeex bi Macky def na 3000 personnes il va plus mettre beaucoup de gens dans les prisons da leen di dugal ci ay kër torturer leen ba ngeen dee sànni leen loolu moo leen di kette mooy soit ngeen yeggali combat bi soit ngeen toog xaar Macky Sall ñëw rey leen parce que moom il vit moom karma moom lay di dund. donc il n'a plus rien à perdre xam na ne bu déwé day neub xam na ne yaram bi mu ngi commencé neub bala muy dé am na ñoo xamanté bala ñuy dé la seen yaram bi commencé neub mo na nga gis ko biir bay ngi reuy saxi la saxi saxi dañ commencé bëri ci biir bi donc biir bi day reuy légui biir bi mu ngi reuy taat ñu ngi reuy saxi saxi sax nekk ci biir bi ah ñooy commencé di gangrener yaram bi mom il n'a plus rien à perdre parce qu'il commence à pourrir Macky Sall mu ngi commencé neub Madame Sall madame Faye da ngay gis nit di dox ni fekk yaram bi na parce que li ngay def lu bon day pourrir si sa riba bi day pourrir sa biir Macky Sall si boppam yaram baa ngi commencé nëpp. Alioune Sall Alioune suñu 400000 xam nga leen yéen ñëpp amul kenn ku ci récupéré 400000 dafa ne da koy ñuux ci biir bi moom tamit 400000 biir bu 5 minutes mu ngi dem toilette. Ils commencent sax ngi mu il commence à pourrir ils sont maudits ils essayent de camoufler la merde dont ils vivent mais ils ne seront jamais épanouis ndax ku ne seront gis ku bon di épanouir ci épanouis. Ils ne seront combattre épanouis. médias ne seront Ndiaga Ndiaga Diouf épanouis. famille mais mon saay bu mon mais moom remordu rey na nit mu ngi ronger Barthélemy Diaz parce qu'il a tué une personne moom nee na day xas ay nervi moom dafa am ay nervi ci boppam moom il a des nervis il a des criminels il a des meurtriers li may wax dama laal li nga xam te ne moo leen di ronger parce que li may wax

jébbal ko seytane te yàlla moo gën a foor téeméeri yoon seytaane moo tax Macky Sall fi may tëjee live bi moy ma naan lan ala boni Macky Sall ala boni Marème Faye Sall ala boni Oumou Diallo vous êtes maudits par les 17 millions de Sénégalais Macky Sall même Koumba Timbo de la maudire Marième Faye Sall même Kumba Timbo de la maudire man duma bokk ci sénégalais yi saaga Kumba Timbo de déedéet parce que bugguma ñu teg ma ci camp ma Marième Faye Sall parce que yéen waa APR nee ngeen waa Pastef ñooy saaga mais yéen seen première daam moo daan fay ay xale ñuy woo yaayu Macky Sall di ko saaga moo tax mënul jural Macky Sall doom yu baax ndax kuy woo sa goro bi la jural sa jëkkër di ko saaga mënoo jur doom yu baax kon Macky Sall Marème Faye Sall balaa malédiction bii dal 17 bii li nga def 17 millions de Sénégalais yi balaa malédiction di dal ci yow si boppam malédiction Coumba Timbo moo moo njëkk a wàcc si yow si sa yaram moo tax yow Oumou jàlloo ma ñëwaat encore ci abu ci abu abu Faye moy sa frère bobu non bokon ci affaire aji sar te ken du ko tank pareil li ngeen def rek yalla lañ koy fay ci sen di len ko fay tamit yaram motax ñepp ngi diri famille mo ñu ko am mineur à peine 25 ans euh, à peine majeur ñom ñepp AVC le karma vous êtes maudit malédiction bi wàcc wàcc ba ci cuucu Amadou bi malédiction bi ñu def yow Macky Sall Marème Faye Sall Macky Sall xale yi ngeen di rey yëpp yëpp xam xale yi nee nañu seen mbay ku jur ku dee sa yaay juraat la ñoom seen yaay dinañ leen juraat parce que ñañu jur namaat yeneen yaay yu leen bëgg a jur mais yéen li ngeen jur bu ñu deewee kenn du leen bëgg a juraat yéen tamit boo leen deewee kenn du leen bëgg a juraat kan moo bëgg a juraat sàcc personne kan moo bëgg juraat lu pataalu day ne Amadou personne ndax nit ki boo ëmbee da ngay ñaan yàlla jur lu jàkk jur lu baax jur loo xam te ne dalay amal njëriñ amal fa askan njëriñ moo tax yéen waa APR boo leen déggee waa Pastef naan ku dee sa yaay juraat la parce que ñi ñi nga xam te ne dañoo bokk ci opposition bi di xeex ngir la liberté du Sénégal ñoom bu ñu deewee seen yaay da leen di dañuy yaay yi ñoo leen di juuroo ne yàlla naa jur doom bu mel ni moo tax ñoom bu ñu deewee mën nañ dellu si mais kan moy ëmb ne yal naa jur ku melni khalifa mais personne kan moy ëmb ne lumeni jur lu melni Macky Sall nit kan moy ëmb ne yal naa jur nit personne kan moy ëmb ne yal jigen jur jigéen boo xam te day lëmbal ni maram fay Sall personne motax yeen bo len dewe ken du ñaan juraat len mais wat encore ci ya xam may le karma est là le karma Si bo len ci tolo ana ya xam bay chaque goudi 300 000 pour le un tiagay légui tutu bi talatul tiagay tutu yi talatul parce que xamulon ni énergie le don dépenser légui il n'a plus d'énergie pour aller chez les buts chaque goudi 300 000 pour tiaga 300 000 tiaga 300 000 tiaga un laaj len ya xam bay da xam tutu bi légui hein mën na mën na consommer 300 000 par jour jamais le karma ci cuccu bi la commencé mooy yàlla mu leen di caw yéen benn par benn léegi moom kiriko moom pareil kiriko na si mbéy ko taatu neen maam nee na ah nee leen Abdou Mbow maam nee na kar lenn rek la defal ah, si mbéykul rek taatu neen bu la neexee nga nëbb cuccu bi ñu xool nga yow nga yaram comme ñun nga am comme yaramu góor normal. est-ce que comme yaramu nit nga am wala danga am bëgguma wax affaire bi <laughs> parce que li mu am li mu am moom kiriku bu mu ko waxee Sénégal day tas bu mu ko waxee Sénégal day tas parce que man xam naa li mu am mais du ma ko wax mais moom na am audace si mbéy ko ñu xool ndax moom dafa mel comme ñun wala dafa am leneen lu rax ci moom moom koo gis bind bi xam ne. moomu ñu bokkuñu extraterrestre la moom kiriku extraterrestre la léegi moom extraterrestre boobu noonu ah moo ànd ak Macky Sall Macky ñu jël yëpp ay extraterrestre ñoo nekk ci moom moom jógewul ci ñun moom moom moom bokkul ci ñun moom kiriku xool leen yaram ni mu bindee ah bokkul ci ñun léegi yenn waa APR yenn waa PS nee naa leen ñoom ñooy tuddante doom seen biir ndax kiriku am na doom boo xam te ne Barthélémy Dias la ko tuddee kër kiriku am na ko tudd Barthélémy Mbow

parce que yi ñom buñu bu né dëkk baangi ngi ñom ñoom ñëpp ku ci nekk day roñ bagage sam daw parce que amna ñu yeneen nationalité su ko défé ñu récupérer suñu dëkk après Poutine mën na ñëw tok ñu laaj ko proposition Macron ñëw tok ñu laaj ko proposition non lañu négocier les affaires on va pas appeler Poutine pour lui dire viens nous libérer parce que bu ñëwee libérer lén day joxe ay conditions ku ñëw libérer ñu day joxe condition li nga malien dañoo IBK ba paré y a partenaire dañoo boulé IBK ba paré malien yépp a ci mbedd ñu boulé IBK ba paré ñu y a partenaire nga xam partenaire du bu ñëwé du joxe ay conditions du ñëw ne man libéré kon donnant donné parce que dans la vie kenn bu ñëwee jox la da koy lebal parce que boo leen Poutine Poutine da di jox donnant donné c'est-à-dire s'il vous donne des armes demain vous êtes redevable et si on ne veut pas être redevable allumette mo gëna a yomb kos allumette di dem kos allumette mo gëna a yomb ah dàq dëmm yi ñu dem ba paré Macky Sall bu dëkk bi také 48 heures Hein? Dakar yi pour také soxlawu sax Sénégal yëpp di tàkk Ziguinchor soxlawu muy déedéet dakaar rek bu tàkkee c'est la capitale yi day daw tubaab bi dañ commencé ñibbi ñoom yu ngeen dëkk bu commencé tàkk rek ñoom dañuy ñibbi tàkk-tàkk bi mooy bu leen xaar ba ay rebelle di ñëw bu leen xaar ba ay terroriste di ñëw parce que bu terroriste yi xaar kase ba installé wu vous êtes mort balaa terroriste yi di ñëw ngeen di terroriser ñu war a indi terroriste yi ba nga xamante ne terroriste dugg ci biir dëkk léegi sama gars waxtaan bi neex na live bi maa ngi ko fi yemale di leen recommander yéen ñi nga xam te ne yéen a nekk Sénégal dem leen ngeen jënd ci keew bi pour def ay masque pour def ay cure pour que bombe lacrymogène Macky Sall bi ak produits chimiques yi ñuy déverser ci biir dëkk bi mu bañ a def impact bu rëy ci seen famille donc maa ngi defaale en même temps publicité euh, huile de baobab bi nga xamantene mom lay jaay parce que je l'ai reçu parce que jigéen yi nga xamantene dañu nek ci Petite Côte bi dafa am ño xamantene ne dama leen jëndaloon machine pour ñuy presser sen huile euh, de baobab dima ko jox ma leen koy jaayalaat donc huile bi yegg si na bo xamante boo amee ñoo xamante ñu bëgg huile de baobab donc flacon maa ngi def euh, ma ñu ngi koy 14 euros flacon yi mun ngeen passer cette commande tuluku na bi aussi. Euh, recevoir na Kulukuna presse froid presse chaud à mon avant mais on presse froid actuellement donc vous m'intéressez intéressé aussi 10 euros le flacon b vous pouvez passer vos commandes Artemisia aussi pareil euh, donc ils sont diabétiques aussi je de recommander à ñi nga problème au rein je vous recommander activement d'utiliser utiliser carbone actif bi euh, ñu bëri dañ may wax waxu charbon néma pas charbon day mais le charbon n'est pas activé moo tax nga gis ñu bari kërign di len ray kërign ray na ñu bëri parce que kërign bi nga diko ko ni c'est pas bon pour la santé dafa melni comme kew bi nga jël ko diko ko yëy na am benen impact ci sa vie ci sa biir yaram donc il faut que ça soit activé donc moo ñu leen naan carbone actif ak charbon actif quand c'est pas activé faut pas le manger parce que vous pouvez tomber malade donc soit ci man carbone active soit vous le faites vous-même mais da ngeen di xol naka lañuy activer parce que man mi wax je sais pas activer nit ko activer moma jox quoi koy donc faut pas mettre n'importe quoi dans votre ventre bala ngeen di dougal tamit da ngeen di jang xol affaire bi naka lañ koy utiliser parce que lu bëri day ci ñun mais ñun dañ dul jàng nuñ koy utiliser c'est valable ñi nga xamante ne tamit dama leen jaay carbone active cure ou 10 jours ça suffit man 10 jours là, utiliser me maigrir mais j'ai pas perdu les 7 kilos tout de suite mais comme ça, mon intestin la facette. bi ma 10 jours j'avais perdu 2 3 kilos mais les comme à carbone actif je bois beaucoup donc j'élimine fondre, je maa ngi fondre nank-nank je ci benn defuma ci benn euh, defuma mon xamante ne voilà daf amul énergie bu bëri bu may dépenser pour perdre donc c'est voilà valable pour ñeneen ñi nga xamante ne ñoom la ko jaay ça sert à rien ngeen gis maam commencé maigrir ngeen non ça veut dire que elle l'utilise tous les jours non je l'utilise pas tous les jours j'ai utilisé 10 jours après c'est vrai que de temps en temps dina jël une cuillère naan pour bañ euh, graisse ou le sucre bi des sama mais je ne l'utilise pas tous les jours donc yéen a ni mon jaay Prenez votre temps. Boire 10 jours, il faut toujours beaucoup boire et continuer. Euh, continuer ne ma wax ngeen lekkee ko di perdre progressivement sen poids yep, te do len ci def euh soxlo ngeen ci def yenen impact Légui amna ñoo il boit beaucoup de thé pour maigrir pour maigrir il faut boire beaucoup d'eau pas beaucoup de thé parce que thé yi dafa am toxine thé ou chinois yi ngeen di jaay dafa am toxine dafa am pesticide donc faut pas utiliser beaucoup de thé non plus café bi à éviter ndax dafa am toxine c'est-à-dire bo bëggé raxas sa yaram bëgg graisse bi di wacc da ngay naan ndox di naan di naan di naan ndox bobu moy éliminer graisse yi donc plus ngay naan plus comme sa intestin bi set na ce sa sa rein yi set na estomac set na da ngay gis graisse bi day fondre tranquillement man maa ngi perdre taat maa ngi perdre fep ça fond de partout et avec zéro fond comme euh, ma déglu soxlawul muy jël avion dem ba Turquie ñu génnee Grèce soxlawu ngay dag sa biir soxlawu ngay def lenn après les 10 jours c'est tout juste boire beaucoup d'eau le soir man pareeguma nanaguma suma soupe je prends un bol de soupe à midi je mange normalement le matin je jël benn fruit ak un peu de thé mais après dans la journée je ne prends plus thé vous faites pareil vous allez perdre naturellement surtout à au bourreau que le da ngeen def comme maman pourquoi parce que si vous fi pas tamit dañ voilà vous allez vous allez être oublié de loolu donc euh, voilà donc ni ma jaay carbone active ça sert à rien de manger tout le pot parce que boo leen jëlee pot bi yëpp mun un am impact ci est donc si euh, vous defee 10 jours c'est fini Vous ngeen jël pot bi teg ko fële ngeen commencer di naan ndox def une alimentation normalement et vous allez perdre progressivement le poids que vous voulez perdre.

mun na leen wàcce loo di sucre non tant que le métabolisme defaraatoo leen ko ba mu set ngeen am alimentation équilibrée vous allez toujours être diabétique donc pour faire diabète da ngay raxas sa yaram ba pare ba mu set wicc mun nga ko raxas pendant le ramadan pendant le carême bu sa yaram setee wicc nga def alimentation équilibrée quand tu manges équilibré euh, d'une manière équilibrée dootoo diabétique diabète bi day jaar na nga jaar avons des ñi nga xam ne dañu tamit problème mu rein pareil sa rein bu setee nga am une alimentation équilibrée saine insuffisance rénale la yooyu yëpp sori na la métabolisme day fonctionner normalement ñi nga xamante ne dañu am problème estomac wax naa leen kew bi surtout que ramadan baa ngi ñëw wala carême baa ngi c'est le moment yéen ñi nga xamante ne da ngeen am problème mu estomac ngeen faj sen problème mu estomac c'est-à-dire ngeen jël ben kuddu kew le matin ngeen baña xëdd ngeen jël ko kew bi ngeen nan ko ngeen wàcc ko mu wëral goomu biir bi Bo len ko defee durant tout le ramadan ou bien tout le carême di ngeen gis gomu biir bi day dañ dootoo leen amati ulcère dootoo leen amati problème estomac yooyu noonu ba pare seen yaram day set ba pare day génnee waale encore produit chimique yi nga xamante ne moom moo nekk ci nature bi Macky Sall déversé ko ak produit yi nga xamante ne moo nekk ci ndox mi kon yéen a ngi dugg ci carême bi yéen a ngi dugg ñu ngi waaj a dugg carême bi ça commence après demain dans un mois dinañ dugg ci ramadan bi donc gaa yi boo leen bëggee raxas seen yaram ah maam mu ngi fi bu dee ñu nekk ci diaspora bi maam am na kew am na carbone active donc vous pouvez m'appeler vous pouvez passer vos commandes maintenant si vous ne passez pas vos commandes aussi mun ngeen yónnee Sénégal ñu yónnee leen kew kew vous pouvez l'acheter partout où vous voulez ngeen def seen cuiru kew durant tout le carême pour ngeen ou tout le ramadan pour que au moins ngeen mën a génn ci jàngoro yu ndaw yooyu noonu parce que fagaru moo gën faju bu leen xaar ba mu yóbbu leen ci ay cancer du pancréas vous leen xaar ba mu yóbbu ci ay yenn cancer yo xam peut-être mënoon ngeen ko éviter donc ñi nga ñam cancer aussi pareil ramadan bi bo len weeree wala karim bi bo len woré ngeen éviter sucre ngeen éviter c'est le moment peut-être cancer de leen parce que gis nañ tubaab yo xam te kessé kese di naan ndox mo c'est un cancer kon li fait cancer tubaab bo xam day woor di ndox tay ñi cancer tay mën na ci corps bi ci carême bi wala corps joindre l'utile à l'agréable yalla lu mu def mu def ko c'est pas parce que ñu ngi dugg ci ramadan wala ñu ngi dugg ci carême que combat bi dafa guerre a non combat bi du guerre, parce que demain, yi dañuy continuer di faire ak bu ñu ne déedéet dañuy acc combat bi parce que ñu ngi ci carême wala ñu ngi ci ramadan li ñuy def ci jaamu yalla la bokk parce que on essaie de sauver des vies on essaie d'aider les gens té bu ñu carême bu ñu ramadan c'est une période boo xam te ne période de partage la période d'aide la donc bu ñu toog ne déedéet dañuy bayyi dimbalé dañuy bayyi xeex dañuy bayyi xeexal suñu dëkk parce que dañu nekk ci dañu nekk ci carême wala dañu nekk ci ramadan ça veut dire qu'on abandonne notre destin entre les mains de ces monstres Tes monstres il y a dafa def ni ñun buñ faire. Qui kenn du leen faire? kon maa bon carême à tous les catholiques qui nous xamante ne commencé commencer carême euh, après commencer ñun suñu carême après demain voilà le combat continue tey euh, suñu génération Bini, dafa am loo xamante ne moom la yàlla def suñu yoon c'est notre destin mënoon na nekk suñu yaay ñoo ci tombé mënoon na keneen mais ñun ñoo ci tombé il faut que ñu jéem a marqué euh, suñu histoire marqué benn empreinte euh, ci monde bi Mali yi marqué nañu seen empreinte génn nañu ci situation Burkina génn na ci situation léegi Sénégal moo ci des te Sénégal bu génnee mooy sauvé na ñëpp parce que ñun ñoo nekk cœur bi ñun ñoo nekk pointe bi ñun ñoo nekk fi nga xamante ne tey buñ ko amé tey Russie bu ñu amoon partenariat ak Russie dinañu permettre ñu am opportunité contrôler le monde à partir du Sénégal tuuti na Sénégal tuuti na mais dans jàng donc euh, maa nous, nuyu ñëpp di sant ñëpp leen bu leen fàtte bu leen xëyee tamit ala boo ni Macky Sall balaa ngeen di balaa ngeen di reer aussi ala booni Marème Faye Sall ah, ah, balaa ngeen di ah. tëdd ala booni Oumou Diallo ñett ñooñu dañ leen war a ala booni leen tous les jours Macky Sall ala booni matin mooy ndékki ala booni Marème Faye Sall boo leen di añ ala booni Oumou boo leen di tëdd muslu ci Oumou Diallo boo leen di xëyee rek dee leen muslu ci maire boobu noonu maire boobu noonu dee leen muslu ci Oumou Diallo Binta maa leen bu baax a baax a baax bonne soirée tout